la question qui a été posée et même avec votre autorisation, en profiter parce que je sais que les deux questions sont liées. Parler un peu de la question de l'ordre public, mais également aussi euh, de celle relative euh, aux possibles manipulations. Et c'est selon le bord à partir duquel on regarde, ou l'angle à partir duquel on regarde la question. pour revenir sur euh, les décès qui ont été annoncés, euh, à la suite du Premier ministre, nous en profitons pour euh, réitérer nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées, mais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et marquer toute notre compassion à l'ensemble des citoyens sénégalais qui ont été frappés dans leurs biens. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, un peu rappeler le contexte. Parce qu'on a tendance à oublier le contexte et les faits qui sont à la base de toutes ces manifestations, mais également des conséquences regrettables sous la forme de décès ou d'atteinte aux biens. Le contexte est le suivant. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé dès l'entame de son propos. C'est une affaire purement privée qui oppose deux citoyens sénégalais. L'une se nommant Adji Sarr, l'autre étant chef de parti et répondant au nom de Ousmane Sonko. À la suite de cette accusation, on a crié au complot. On a crié à une machine destinée à empêcher un homme politique de se présenter aux élections présidentielles. Mais il faut le rappeler, nous sommes en République. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, l'État lui-même est soumis au droit, mais les autres citoyens également sont soumis au droit. On peut ne pas être d'accord avec la position exprimée par un citoyen comme euh, vis-à-vis, euh, -vis, comme on peut ne pas être d'accord avec une position exprimée par le gouvernement. Mais tout cela est normé. Nous vivons en société, il y a des règles auxquelles tout le monde doit se soumettre, à commencer par le gouvernement lui Mais qu'est-ce qui s'est dans le contexte des manifestations de mars 2021 comme dans le contexte des manifestations de juin 2023 On a entendu délibérément se soustraire à l'application des lois qui s'imposent à nous tous. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on va contester et faire prévaloir nos prétentions devant les instances habilitées. Mais on ne demande pas à des citoyens de sortir pour manifester au prix de leur vie et en l'assumant publiquement. C'est ce à quoi on a assisté. Et notre modèle de vie en société n'a absolument encore moins notre histoire n'ont absolument rien à voir avec tout ceci. Nous pouvons avoir des divergences de points de vue, des divergences même parfois profondes. Nous pouvons avoir des opinions très différentes. N'empêche, lorsque nous sommes amenés à être départagés sur des positions qui ne sont pas les mêmes, inévitablement, nous devons nous retourner aux différentes instance, mais également organe désigné à cet effet. Mais on ne peut pas se lever pour dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la vie en société ne va pas se poursuivre. C'est d'ailleurs ce qui a amené les attaques injustifiées des infrastructures qui nous sont utiles, pour ne pas dire indispensables, à notre vie commune. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal vous n'êtes pas d'accord avec moi vous organisez une attaque contre mon domicile vous n'êtes pas d'accord avec moi mais vous vous demandez à ce qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas d'accord avec moi vous dites vous, vous jetez la personne à la vindicte populaire alors est-ce que c'est ça le modèle démocratique dont on a hérité des anciens et de nos prédécesseurs est-ce que nous voulons vivre dans une société où certains n'auront plus voix au chapitre parce que simplement ils auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position. Et ça commencé avec la presse. Je l'ai lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019, lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiées par certains médias locaux. C'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête. Tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son Excellence Macky Sall, avaient des scores énormes. Tout de suite, une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les attaquer. Et il y a eu, je vais les nommer, il y a eu l'attaque de la radio RFM. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est condamné à se taire C'est pas ce Sénégal que nous connaissons. C'est pas ce Sénégal dont on a hérité. Et nous ne Sénégal où nos enfants n'auront pas le droit d'exprimer librement leur opinion parce que tout simplement ils auront peur d'être jetés à la vindicte comme des traîtres ou bien quelque part comme des personnes qui des vendus. Non, c'est pas ça le Sénégal. C'est pourquoi il est important de rappeler le contexte et de rappeler les faits. Au-delà de ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment avec les événements du mois le leader du PASTEF a appelé à une caravane dénommée celle de la liberté sans déclaration préalable alors que la loi l'y astreignait il a déclaré il a déclaré qu'il ferait des étapes et on s'est rendu compte que déjà à l'étape de Kolda il y a eu un décès est-ce qu'un gouvernement responsable va laisser faire est-ce qu'on va laisser faire une caravane sans déclaration des rassemblements sans respecter les formalités de la loi avec des conséquences d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à l'intégrité de leurs biens sans agir, mais que non, on ne peut pas laisser faire de tels agissements. Et c'est pour cette raison, conformément aux principes qui gouverne le maintien de l'ordre, la doctrine du maintien de l'ordre, de façon générale dans beaucoup de pays, mais particulièrement dans le nôtre, repose sur quatre principes. Quatre principes. D'abord, il faut de la légalité. Ensuite, il faut de la nécessité, de la proportionnalité et enfin de la réversibilité, qui sont des principes, au besoin on y reviendra plus tard, plus en détail, dont le maniement ou en tout cas euh, l'exercice demande à chaque fois que de besoin de prendre certaines mesures. Pour répondre directement à la question du, de ce que vous avez appelé le blocage, mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration. On constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. Ce n'est de statique. c'est dynamique, c'est pas statique. En cas de, si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs c'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas euh, arrive à un moment, en arrive à un moment où il faut libérer disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau euh, de ce quartier de Cité Kergourgui ou même dans une autre partie du territoire. Il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir donc circuler euh, dans de telles zones. Voilà ce que je pouvais, euh, voulais apporter comme précision sur ce premier élément. Et Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, je pourrais euh, enchaîner avec les manipulations sur la police. Alors, j'en ai également parlé. les réseaux sociaux constituent un formidable outil de diffusion de la bonne information, mais également, et malheureusement, il faut le regretter, c'est le revers, constitue également une sorte de fléau des temps modernes selon l'usage qu'on en fait.